teelu xaaju midi plus bi exactement midi 30 safula 13h37 mooy euh, doog jot ñu gërëm bu baax rédaction bu télévision Futur Média bu Diouf euh, le journaliste séeréer il me rappelle Senghor puisque c'est un grand journaliste et puis en même temps day bind ay livres donc séeréer intellectuel yenn saa moo romb ko tooñ ko comme man damaa yab séeréer si maay seen buur Euh, ci yëfi kalante yenn saa yi ma ne ko séeréer nga wala wala wala nit nga mu ne ma non nit laa ma ne ko kon séeréer du nit <laughs> loolu laa koy tooñee moom Ibou Diouf donc ñu ngi koy gërëm bu baax ci euh, journal bi mu ñu euh, présenté ñu continuer ak yéen bu leen fàttee enveloppe yi damay continuer di ko séddale ci numéro de téléphone yi nga xamee ni ñu ngi affiché wu ci suufu écran bi 88 628 76 76 ci ndimbalu équipe technique yi ci ginnaaw maa ngi tooñ El Hadj Vieux naan ko jëlal ñëpp ku dugg rek euh, ñu jël ko bu ko defee euh, yéen jaamu yàlla yi ñu jox leen seen wàll euh, seen comp ci 60 millions bi nga xamante ni Orange Money moo ko teg ci table ji ren ci li nga xamante ni moo di Teranga Sénégal bu télévision Futur Média gërëm nag bu baax équipe yu Keifa nga xam ni suma ay partenaires la ñu souvent da ngeen di laajte yére yu may sol moo xam costume africain wala yére olof donc waa Keifa ñoo koy réaliser ils sont disponibles sur internet Facebook euh, Instagram wala seen site internet euh, donc ñu ngi gërëm bu baax euh, équipe yu Keifa je rappelle que fi mu tollu tembe ñu ngi waaj a seen ay commande tabaski donc Bàcc Jum ak équipe yi mu àndal yëpp ñoom Raphaël ñoom Vieux Cassé ñoom ñëpp ñu ngi leen di ndokkeel di leen ziar ci maison de couture boobu la nga xamante ni mooy Keifa Kumba Gawlo itam mu ngi woy léegi sunu sang bi nga xam ne ni li ñuy ñaan rek mooy mu yàgg fii lool te ànd ku wér responsable moral bi chef de guerre bi ki nga xam ni euh, sañ naa ko tuddee le bu des jeunes euh, fi réew mi toll euh, xale yëpp fonk ko lool ndax discours yu am solo yi nga xamante ni moo ngi koy tenir bu weesoo discours am ak jamonook ni muy doxee ñu wóolu ko lool ndax damay faral di dégg ñu naan la ca maam sët da koy jël moom nag sang bi ñu ngi koy ñaanal gudd fan ak wér gu yaram ak rek dara maan aram loo kumba caam te xam naa ni Oustaz Modou Fall ku laal sa xol bi bëgg a békk jërëjëf alaaji Pape jàmbaar jàngoog surtout Serigne kër si bangoog doomi Serigne Cheikh Tidiane si almaktum jàngook mm-hmm. kii la bàyyam ni woon Moustapha sagal nga ma yàlla na la yàlla sagal wallaay Pape Kiye fexe ba ndaw ñëpp. miin xilaasu zahab. fexe ba ndaw ñëpp. di rabbun tabaarak. aw rabbun taqaddasa. aw rabbun taala uluwan rabbi allahu. amiin kiyee toog ci kursu bi Pape. def discours bu rafet. wallaahi bakk Seyduna Muhammad. ba pare éloquent. indil ñu jàngale baayam. dégg tubaab naan xalaala ki jawwul qalbi. yaa tayra xubbihi. fa bii di bi xayrin. Mhm. wasfiri asada tayri. Mhm. kiyee Serigne Moustapha Sy. Mhm. responsable moral ñaanal ko yàlla. di ko wax ni sëriñ bi. Mhm. joyeux anniversaire. macha allah tey mooy anniversaire am. wallaahi ñaanal ko yàlla yàlla may ko gudd fan. allahumma sëriñ Mustapha wéeral. allahumma sëriñ Mustapha guddal fan. allahumma sëriñ Mustapha yàlla sàmm la. allahumma sëriñ Mustapha yàlla aar la. allahumma jamuñu xam-xam ndax yow. déedéet bu sa maam sëriñ Babacar si ñëwoon doo defaraat sa toogaay. wallaahi sa taxawaay rafet na. si Malick dundal. wallaahi guddal fan. Mhm. joyeux anniversaire sëriñ bi. kese mi ngi noonu. macha allah Sidi Fagay Demba mi ci jawaar ñu ngi koy ndokkeel bu baax ak jabootam fàttewuñu itam taalibe yi waaye doomam ji euh, sunu commandant bi. capitaine euh, ñu ngi koy ñaanal capitaine bi plutôt. Euh, nga xam ni boo seenee vidéo yi bu njaabee ba jiitu. xale yi topp ci ginnaawam sa yaram dafay daw. mais Pape da ngay xam ni deret daal day rogalaat. mais Pape al waladu sirru abihi. Ah, waaw am na koo xam ni boo ko nee jàkk xam kuy bàyyam. Mhm. capitaine boo ko nee jàkk xam ne Serigne Moustapha Sey baayam. la ci baayam rek ne waaye ba ci jarbaat yi itam Serigne Cheikh Tidiane Sarr. Mhm. nga xam ne jarbaatu sëriñ Moustapha la. Mhm. yaayam ak Serigne Moustapha si bokk ndey ak baay. Mhm. waaye xam-xam éloquence Serigne Cheikh Tidiane si. ku bokk ci moom war nga am xam-xam. ku bokk ci moom war nga am éloquence. mais ñi Serigne Moustapha si yar alaaji Pape boo leen nee jàkk. moom daal boo leen doon tànn danga naan. ñii daal mhm. kenn du leen jaawale njabootu Serigne Moustapha lañ ñii daal kenn du leen jaawale njabootu Serigne Cheikh Tidiane si lañ kii ay capitaine Alaaji Paam ndaw ñi bëgg ko ndax jàmbaaram mhm. pastéefam Mamadou Ndiaye taxawaayam fii ci télévision Futur Média xam naa ni daanu na leer parce que moom dafa faa capitaine ngi nii Pape yenn ne ma loo xalaat ci capitaine ma ne ko man waxuma ko capitaine mais Pape fulla ak njàmbaar mais bàyyam bu toogee rek ba ni dama toog benn bis ak benn soxna <laughs> noonu muy waxee noonu éloquence boobu mais xam-xam yenn wéet euh, vieux vinil photo bi nga wane ma <laughs> li may wax daf ma neex daf ma ñor yenn saa yi man sama ay xarit dañu may fay pour ma leen di toppandool sëñ Moustapha Sy non wallaahi nit ku baax la bu toogee bay waxtaan ak éloquence bi dama toog mhm. bi mu toogee mu ngi expliquer ay mbir yoo mm, xam ne wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan gis nga góor gi après dafa faa waay juróom bu góor gi mais Serigne Cheikh Tidiane rek la bëgg dafa faa papa Pape Serigne Moustapha Sy boo ko laajee koo bëgg mën na la sam Serigne Cheikh Tidiane si mooy référence am. mooy idolam mooy mm-hmm. léppam. Mm-hmm. Serigne Cheikh Tidiane si Pape. bi ma toogee bi ma toogee noonu ak góor gi. wallaay ndeysaan góor gi daal di may expliquer. mais mi ngi noonu Pape ma expliquer ma daal mais Pape façon bi muy prononcer. mais Pape yàlla li muy li xam-xam bay rëy rëy rëy. Mm-hmm. tab gaa ko ëpp. wallaahi Pape nit ku tabee ngi nii Serigne Moustapha Sy. ndeysaan. pap kii bu la teralee nga xam ne teral na la mhm. pap nit ku baax a ngi nii nit la koo xam ne alaaji pap mhm. ñun day bég nañu ci yàlla boole gi mu ko boole ah, mu bokk ci njabootu Seydil Hadji Malick am nañu ko di ko tiitaroo mhm. tey bu ne woon buñ ne woon làmbi xam-xam jib na bu demee du nu am gàcc bu defee discours ñëpp kontaan. bu waxtaanee ñëpp bëgg. Mhm. bu nee salaamaaleykum kenn dootu noyyi. loolu nag yàllaa koy def ci ay jaamam. ala inna awliyaa allahi mhm. laa xawfun alayhim wala hum yaxzanuun ñaanal ko moom Serigne Moustapha Alaaji Papa yàlla mhm. yokk ko. yàlla may ko wér. yàlla suturaal ko. gën koo dolli ay may ci daraja yonent bi alayhi salaatu wa salaam. mu ngoog donc ñu ngi euh, ndokkeel bu baax jabootam yëpp moom sang bi ci boppam euh, ñu ngi koy ñaanal gudd fan ak euh, wér yaram. Euh, tey jii di bisu atalam euh, ñu àndandoo euh, ñaan yi muy ñaanal Sénégal di ko ñaanal ndaw ñu surtout na ndaw ñëpp àndandoo tey ci àjjuma bi ndax c'est pas un hasard bis bi tey tombeek anniversaire am ku ci julli rek. ñaanal Serigne Moustapha ñaanal wér. alaaji Pape nit ku baax oustaz Pape An xam naa fa mu nekk mu ngi koy ñaanal euh, mami Maysa euh, moom ci jaboot gi la bokk xam naa ni fa mu nekk ca mbuur euh, mu ngi koy ñaanal Ami Mané moom kenn xamul fan la bokk waaye neen daa fa daa daa fan sang bi. mais ñëpp ko bëgg Pape voilà da koo da koo sopp lool. ñëpp ko bëgg ñu ngi koy béggee bu baax a baax yaa oustaz defe naa mën nañu continuer. jokko bi ak téléspectateurs yi. Mm-hmm. bu ko defee ku wootee dañu lay teral ba pare. jox la sa wàll ci teraanga Sénégal comp yaa ngi tege et euh, li ci topp mooy euh, jébbal Oustaz Mout Fall. mais Pape xaalis bi ngay maye pourquoi man mi toog ak yow doo ma ci may. mais loolu mënul nekk Youssou ngi lay fay <laughs> yow kay fi mu ne nii ñu ngi lay fay ba di nga ñëw ca baalam ba tey. tey de dañuy baali fële grand théâtre avant première bi tey la ca grand théâtre national. <laughs> man de Pape Youssou dama koo gëj a dégg moom tukkiwul mi ngi fi. <laughs> mu ngi fi mu ngi fi nag mu ngi fi. mi ngi fi soirée bi lay préparé. ah man de Youssou mi gëj naa koo dégg lool. mu ngi fi de xëy na di ko gis merci. <laughs> tabaski bi daal tabaski bi daal jot naa message am. tabaski yàgg na tabaski ba non non kii bi damaa jum korité bi. Ah. korité bi jot ah, naa message am mais moom nuyu ma koy nuyu nii di ko laajte boobu ba léegi te wóowu ma ni ma Modou maa ngi fi. Youssou dafa ñeme merci de Pape je suis fier de toi <laughs> yooyu la ñeme moom. <laughs> ak nan la nii xoolal dajeeg yow nan la nii. yéen double check waaw. <laughs> Youssou yow tam. namoon nañ la lool wallaay namoon nañ soo gi allez euh, ku dugg rek ñu euh, euh, teral ko ñu ngi leen di xaar 88 628 22 22 ak it 88 628 04. zéro cinq oustaz am na koy laajte naan ndax euh, soble <laughs> laaj bu important gis ngeen yéen borom xam-xam yi il ngeen bàyyi lii am na laaj yoo xamante ne bu ñu leen ko laajee daf leen di def ay reetaan ba ki koy laaj sax day rusa àggali question man bu dee da nga mën a laaj da nga mën a reetaan ci soble nañ ko bàyyi ndax kii laaj bi da koo ñor mu ngi laaj naan soble ndax day toj njàpp wala tojul njàpp. soble quoi c'est-à-dire je reçois tellement de question bu ci gën garaaw rek nga ni bii balaa may dem ci yeneen question yi bay jël téléspectateur euh, Vieux Diouf wax naa la ko sànq El Hadj Vieux téléspectateur yëpp dee leen dugal rek deel dugal deel dugal ku dugg rek ku woote rek dugal ko en direct bu ko defee ñu benn benn benn ko waaw xam nga su ma xamul woon fu question bi jóge ah. du ma def ah, man de Baye laa tudd mais bàyyi Ndiaye ci boppam <laughs> bàyyi Ndiaye. <laughs> Baye Ndiaye Baye Ndiaye sérieuxul <laughs> Ndiogou Mbaye sérieuxul Fallou sérieuxul Aziz Ndiaye seen mag sérieuxul Baye Ndiaye ne ko tontuwuma ci question bi. waaw mais euh, wax ko réponse bi soble day toj njàpp wala tojul njàpp soble <laughs> parce que soble moom da lay jooyloo boo ko dee fejet <laughs> jéeg gi ci waaj wi sonn nañu lool buñ dee fajat soble dañuy jooy rek léegi nag xaw ma ban soble lay wax ndax soble day toj njàpp. <laughs> Pape yow daal bul déglu Baye Ndiaye ndax soble mbay wax wala <laughs> soble parce que soble itam daa bari façon man nandite bi man fajatkatu soble la omelette dinaa ko soble thon dama koy soble. <laughs> donc loolu defe naa question la budul am réponse am na itam kuy laajte nii dafa seetlu nii fan yii yëpp dafay gis euh, ay jigéen euh, yuy wax nii may nañu leen 10 millions may nañu leen 11 millions après bu demee ba ci digg bi mu découvrir ni loolu du dëgg euh, loolu lan la ci lan la ci diine wax. jërëjëf Alaaji Pape xam nga jigéen moom Pape. Mhm. bu ñu ko mayee ay milliards. Mhm. bu fekkee mu mel ni mu war a mel. Mhm. ci yar ci teggin ci diine ci lislaam mérito na ko waaye xam nga paap naan may nañ ma nàngam te kenn mayula ko loolu naxoo kenn ku dul sa bopp te itam dana waral ñaar dana waral mbokki ku góor ki bu ñu amee xel mu gàtt danañ mere ku góor ki ni am na lu mu war a def ci farata te defu ko jàkkaarlook ndaw si di ko may fukki million waaye sagal sa bopp la rek waaw maa ngi ñëw mhm. beneen bi ci desit dana tax mhm. ndaw sa wax ni may nañ ko nangam ñay yaakaar ca moom ak ak fameem ak coow leeg wax jaag débat baag waxuma dara mais cat gi. catu sénégalais yi may nañ la 10 millions cat googu. cangaayam ngaayam de gëw ma ni am na ci réew mi. man de ñamee ma seen cat. ku ne naan may nañ la fukki million pap bu la jigéen nga doon jàmbaar te kenn mayu ko. dëgg la luy loolu. dëgg la can moom bañ na ko ba seerul. Mm. wax li nu la may amul solo. Mhm. am na ñoo xam ne may nañ leen lu ko ëpp te kenn mhm. déggu leen. parce que jigéen ak valeur am un milliard sax. jënd ko jënd ko alaaji ba yàlla yàlla bëgg mais wër naan may nañ ma nàngam di aj prix bi. di ci tiitaru mais euh, sac ba tiitaru di tiitaru. xam nga ba say xarit ñoom itam jàpp nañ ni ku leen mayul som boobu waru leen a takk yaa ngi leen di tànnaloo yoon bu baaxul alaaji Pape. Mhm. 10 millions yi ku koy xaar mën ngaa bañ a gaaw a dégg alxayri de réew mi neexut de. Mm-hmm. wàccee leen taux bi yóbbu ko ci 700000 gam nekkoon ak 400000. ak 250000 yii. bu njëkk takk mais rajo lañ daan joxe pap ak 100000 francs boobu tàng rajo xew. mais léegi aj nañ taux bi ba 400000 500000 baax na. sama yaay say nopp dégg naa kii lañ ko mayoon machine mooy machine yooyu machine à coudre <laughs> Singer tombeeg sama yaay di liggéeyee. ca mbay CSR bi defar machine yooyu donc xam na prix bi sa <laughs> bàpp alkaati la woon salaire ba baaxul dégg naa da koo dajalaatu un an <laughs> machine bi la yóbbu. yàqu nga sama yaay ñaw rek la nga te dootoo ñaw rek la woon ab couturière la <laughs> mais. waxuma ñaw comme modèle yi way sol de yére bu xotteeku la sama yaay mën a ñaw. <laughs> Pape daal euh, nit mën nga sagal sa bopp. <laughs> waaye daal di aj too bi naan may nañ ma nàngam te kenn mm-hmm. mayu la ko. Mm-hmm. bu ko defee sa xarit yu jigéen yi. Mm-hmm. ñoom itam jàpp ni lii dañ leen koo war a jox. di ci di ci maanaam dem ba aj benn prix bi. Mhm. parce que boo xasee génn ni may nañ ma 10 millions. mais sa xarit bi la def adversaire def la wujju mhm. moom itam dana lijjanti ba lu mu gàtt gàtt am 5 millions te léegi pap góor ñi ñoo mayeetul som boobu. Mhm. même bu dee lii am na ñi koy maye da nga leen compter alaaji pap nañu wàccee waat prix mi. delloo waat ko ci taux bi prix bi yéeg na de. bi yéeg na pap alaaji pap taux bi yéeg na te bari na ku tax nga yéegal taux bi dara newu fa alaaji pap makki yow ba jàpp yaa ci ne. papa lipp lèvre ba jàpp yaa ci papa booy jinne jëkkëru Ndeye Gueye bi mu déggee 10 million yi dafa ma woo ci suuf ne ma waamee sawaay comme Ndeye Gueye moom yaay càmminam te ma leen joxaat dolli leen ma ne ko yow may nañ la ba pare yow te téyel sa jabar te di patak moom. mais dëgg la alaaji pap <laughs> yenn saa yi nga gis ñu aj tuu bi alaaji pap uh-huh. te danaa koy faral di wax ñi nekk bitim réew. Mm-hmm. nañu def très attention. Mm-hmm. ku ciy takk jabar bàyyil ba ñibbisi. xamanteeg nit ci Facebook bi mbaa Instagram. internet wóorul waaw. alaaji pap yónnee xaalis takk. boo ñibbisee la nga foogoo nag la am mën naa wuute. dëgg la xale yu jigéen ñi lu ne la ñuy monter. Mm-hmm. dañuy monter ans. Mm-hmm. dañuy monter ay mbagg. Mm-hmm. monter ay tànk monter ay xef. yor iPhone 13. taal lumière bi di photo yóbbu ko Snap 95. buñ la ko yónnee tem nga say jàpp ni nii lañ mel or que meluñu noonu. di takk ay géem ak lu ñu dugg ci naturel alaaji Pape bu ko defee nag lépp luy dugg da nga koy xam nu wàccee waat prix mi can gu bari eh, xaalis bu bari bi ñuy tiitaroo cat gu bari dong la lay yokk waaye li am solo mooy sëy bu barkeel te ngay sëyal bëgg la waaye di tiitaru may nañ ma nàngam sa njëkk yi ñëw toog ñuy compter xaalis bi géwél bi taxaw fii may nañ ko nàngam da koo meritoo da koo nàngam tiitaru àdduna ak pametu àdduna la mais dara amu ci solo mais parallèlement am na nag ay jigéen yu naturel lool sax na ay jigéen yu la ah. mais am na ñoo xam ne yokkuñu dara ñuy yónnee photo ne ko yónnee ma sa photo carte d'identité waaw moo gën a naturel. amul benn mais wala nga dem seeti ko moo gën a wóor. waaw mais xam nga am na ñoo xam ne boo waree ñëw dañ koy waaj pap waaw dëgg la waaw am na ñoo xam ni boo waree ñëw dañ koy waaj. Mm-hmm. te nit wan ko sa naturel daa am solo. Mm-hmm. wan ko ni nga mel. Mm-hmm. ndax am na koo xam ni yónnee na xaalis bay bëgga dee. bi mu ñibbisee gis kam doon yónnee xaalis pap da koy xool ba pare génnee photo ndaw si téléphone bi xoolal naan nii. di ko xool di xool téléphone bi di xool ndaw si ba xam kii am na koo xam ni saa yoo ko bettee mu mer parce que ni mu lay woon melul noonu nanuy wane seen naturel bàyyi tiitaru bu bari bi. Mhm. may nañ ma 10 millions may nañ ma 20 millions après jigéen dong nga. Mhm. mënuñu laa may ci àdduna lu rëy ba tax nga weesu jigéen. Mhm. am na ku la ëppale te kenn déggu ko. waaye manifestation manifester yu métti yi pap du la yokk lu dul cat. Hmm. amul benn njariñ te cat baaxul te cat baaxul. cat baaxul te di wane ni may nañ ma nangam te mayuñu la ko amul hmm. sens. yàlla incha allah musal y a une question boo xamante ni sànq la ñëw ci li ñu doon wax sànq euh, affaire u dee boobu moom da nga ci tontu rapidement rek et en même temps euh, nañu ma euh, jox téléspectateur bu woote rek nañu ko dugal très rapidement puisque war nañu suivre xutba imam bi ci ajjuma bi ndax nit mën na jënd place am ci bàmmeel. jërëjëf El Hadj maanaam bàmmeel kenn du ko jënd. Hmm. am na ñoo xam ni ci bi ñuy dund ñu ñuy waajalee seen bopp def ca bokk am fu nu wut place ne man kat su ma génnee àddina nañ ma denc fii su ma génnee àddina na ma diw jullee na ma diw taxawu yàlla nag daf ni nit lépp lu mu dénkaane ci bi muy dund ne nañ ko ko defal nañ ko respecté waaye loolu it dara nekku ci alaaji pap gën a bàyyi xel sa bopp la mm-hmm. am na ñoo xam ne tey fi ñu leen denc bi ñuy dund mm-hmm. daan nañ fa ñëw di wàccee kaamil mm-hmm. di defar barab bi seen bopp la ñuy waajal dafay tax nga bàyyi xel dee gën a bàyyi xel sa borom man ci sama waajur boobu alaaji Golbert Diagne yàlla yàlla yokk leeram bàyyi malal ci moom laa njëkkee dégg ni moom dafa teel a jënd euh, perkaalam daf ko daan def waaw ko daan def waay pap am naa sama benn maam bu ñuy wax Baye Omar Ndiaye ca Makka Ndiaye euh, daf daan def fi ñu ko denc àjjuma bu nekk daf dem. bu demee dafay toog dafa def ay dog di ñaan. ne sama kër gii ma jëm si. yàlla na ma ko yàlla leeralal avant ma fiy ñëw. xam nga wax naa la sànq ne la tooñ dong moo mën a lëndëmal bàmmeel. mais ñooñu ay wàllu la ñu mais ñooñu Pape dañuy bàyyi xel yàlla fa nu toll. ñoom ko ñoo xam nga dee moom Pape ah. laa yati illa baxtatan yàlla nee na dee du ñëw lu dul ci mbetteel. xamoo ban heure la. xamoo kañ la. xamoo naka la. xamoo fan la. xamoo ci lum lay fekk. Mm-hmm. nit mën nay fecc ba mu yàgg sax mu yem fa. yàlla nañ ci nit mën nay doxi naka sudul noonu ba mu yàgg mu yem fa. yàlla nañ ci yàlla moo tax lu ci nekk rek pap jamono bu nekk bàyyil xel jamono bi nga toll. Mhm. def ca lu neex yàlla pour bu la dee bettee woon noonu doo rus. alaaji Pape loolu tam lu mat a bàyyi xel. lu bàyyi xel la allez ñu jël euh, euh, ay téléspectateurs enfin ñu jël leen yéen euh, bu ko defee ku dugg rek non seulement di nga tànn région bu la neex wala boîte midi plus yi loo fa fekk ma yónnee la ko directement ci sa calpe orange monnaie mais en même temps di ngeen am possibilité poser benn question ku nekk am nga droit benn question boo mën a poser oustaz Modou Fall allo allo. allo. ah Pape Cheikh. kooku. man na Soxna Diaw. Soxna na nga def. sant yàlla bu xam jaw jaw yaa ngi wootee fan soxna. maa ngi wootee pharmacie golf. yaa ngi wootee. pharmacie golf. ah pharmacie golf ça va naka pharmacie golf. ah ñu ngi sant bu baax. nu ngeen def ak tàngoor beeg embouteillage yi. waaw embouteillage moom métti na lool moom. métti na kay léegi balaa ma lay paas Oustaz Modou Fall dama lay bàyyi nga wax ma loo bëgg carte bi wala boîte yi. Euh, carte bi. carte bi d'accord je te montre tout de suite la carte. bu ko defee nga tànn région bu la neex loo fa fekk ci montant rek comme teranga ma comp ko yónnee la ko directement ci sa calpe orange monnaie yaa ngi ak sa calpe orange monnaie. waaw. mbaa déplafonné nga ko rek. waaw waaw. jeena yàlla nga fa fekk 500000. amiin. Aïcha ñu bàyyi la nga tànn région bu la neex parmi euh, toutes ces régions du Sénégal. Mm-hmm. Tambacounda. Tambacounda allez El Hadj Vieux Diouf la ñu ko génneel région de Tambacounda di ndokkeel euh, Ndeye Binta madame Guissé. moom it euh, mu ngi ci équipe technique bi ci ginnaaw euh, Kumba bu SVA ñaareel xaritu jëkkëram euh, Ibrahima ñu ngi koy ndokkeel bu baax ak sunu équipe yëpp fu ngeen mënti nekk ne ci waar wi donc Tambacounda mooy région bi nga tànn. waaw lan moo tax nga tànn Tambacounda. bon sama xel moo ci dem rek. ah sa xel moo ci dem d'accord dégg naa Tamba tàng na de. <laughs> li tutaan jàng naan sama doom yi dama leen bàyyi ni yàlla bàyyee Tambacounda ma ne ko yàlla nu mu bàyyee Tambacounda mu ne ma tàmbaa nga tàng <laughs> donc Tamba mooy région bi nga tànn damay bës léegi bouton bi comme ça ma tàmbali décompte bi ak yow d'accord d'accord on décompte pour Tamba 5 4 3 2 1 cent cinquante mille moo nekkoon ci région de Tamba xanaa da ñaan ñaanlu. merci beaucoup. xanaa avant ngay woote da ngaa génne sarax. non damaa ñaanlu nag. da ngaa ñaanlu kay tey ñaata nga yewoo ci xaalis. tey ñaata nga yewoo cinq cinq. kese. kese. xanaa ndugg leen marché togg leen tey xis tey tey seen kër. non togg nañu sax. togg ngeen lu ngeen togg tey. ma sama budget personnel mooy 525. mais kan moo joxe depanse bi sa borom kër wala sa papa. sama borom ah, sa borom kër moo joxe dépense bi. bi. loo koy toggal tey. ceebu xonk. jee na bu am bëgg a jëg suul astafurlaa ceebu xonk du am bëgg a jëg suul mais bu am jaga. waaw bu am bu xonk bu am jaga mbaa dina am nenu jën. <laughs> damaa bëgg nenu jën ok mais yow mais man maa ngi maa ngi maa ngi lay yónnee cent cinquante mille bi mais dafa mel ni amuloo calpe orange money ah. si am naa ko kay. ah yow mel ni ku def erreur. am naa ko de. attends xaaral ma waat. j'ai pas compris te am nga ci téléphone bii nga may woowee. waaw téléphone baa ngi nii ma jàkkaarloo kay. mooy bi nga téye di wax ak man nii. non non man fixe laa la woowee instant bi. ah tu m'as appelé avec un numéro fixe. mais non kon amoo sa numéro de téléphone woowee woo ma ak sa numéro portable. mais orange la la la la la kii wifi orange bi la abonné. attends il elle appelle avec un numéro de fixe nañu ko jël mu joxe numéro portable bi ça va être plus simple léegi ne quitte pas ma passe la euh, ma passe la équipe yi ci ginnaaw très rapidement parce que bëgguma nga joxe sa numéro téléphone euh, ci kaw bu ko defee ñoom ñu yónnee la directement sa 150 000 ci sa calpe Orange Money voilà calpe Orange Money tellement dafa pratique il faut que ñëpp am ko ba noppi itam bu ngeen bëggee am ay exclusivité concert par exemple n'hésitez surtout pas mën ngeen dem ci plateforme bi di Wido W I D alors Wido mooy meilleur euh, ci wàllu création africaine donc si vous avez envie de regarder des séries et des films documentaires ou concerts euh, mën ngeen abonné wu ci euh, Wido 13h59. Adjaratou Binta Diallo bu télévision Futur Média borom soir d'info ak actualité internationale sur RFM nee na añam mu ngi xëm ndax Oustaz Modou Fall Adja Binta bu dee plainte dagan na plaintal bu dee demande explication comme ci kilifa yi kër gi nga bokk defal demande d'explication rek yónnee ko oustaz parce que oustaz dañoo xaw a doy waar ñoom fexe nañu ba bàyyi animateur bi jiite leen <laughs> Adja Binta ñu ngi koy ndokkeel bu baax euh, bëgg loolu suma mag euh, tuutaan jàkk bu subaata naa mi ci seng gi ci laaw demba di ndokkeel itam bu baax Adja Ndak euh, mu maam Seyni jigéen la ci euh, père Abdoul Aziz Mbaye euh, bu télévision Futur Média waaye man suma xarit la moo àndoon nag Ajaratu Absa Dieng seen TV donc ñu ngi koy ndokkeel bu baax ab sa Dieng Euh, moom it ñu ngi koy ndokkeel di ko ziar yaayu euh, Ndey Faatu Kati ca dëkk bu ñu naan Amérique ale beneen téléspectateur très rapidement c'est vrai que moom jotuma ko may sax mu wax ak Oustaz Modou Fall mais c'est pas grave euh, nañu ma organiser mu jot ci xaalis bi très rapidement alo allo allo di nuyu waa Transair compagnie aérienne bu mag boobu la nga xamante ni mu ngi def dëkk yi euh, di def euh, ay Cap Skirring ak Cap Vert ñu ngi ndokkeel Fabi moom itam elle fait partie des marraines euh, de cette émission Madame Fall Transair Fabi ak toutes les équipes de Transair allô allô allô allô allô ayca gaaw leen ci woote yi soxla naa itam écran bi may jàkkaarlool fii ci sama kanam très rapidement deux heures pile Euh, mooy euh, euh, doog a jot xaalis bi dañu koy séddale ba keroog ñuy tàggatoo ak yéen ku dugg rek ku woote rek vieux dugalal mu ko en direct ci antenne bi bu ko defee ñu jox ko li nga xamee ni moo di wàllam ci teranga yi nga xamante ni ñoo ngi koy séddale tuddee ko teranga Sénégal allo allo allo. allo. kokan la. man la Dieynaba Diallo. Diallo Jéeri na nga def. maa ngi fi alhamdulilah. Dieynaba yaa ngi wootee fan. alala ah Dieynaba de xam naa kër dem jeex na mais néanmoins numéro téléphone am am nañu ko dañu koy boole ci tirage u kër gi wala pariru or bi wala chambre à coucher bi puisque dimanche à partir de 17h ci lay amal maye bu mag bi tirage bu mag bi tuddee ko grand maye donc numéro de téléphone dina bokk ci tirage bi ñu fas yéene koo def. ci kanamu huissier de justice allez joyeux anniversaire à Mbirou Sarr madame Thiaré euh, gudd fan ak wér gu yaram la ñu koy ñaanal euh, jigéenu euh, Pape Jean agent digital bu télévision Futur Média alo allo allo Aïcha le temps beneen téléspectateur di dugg ñu jël beneen question bu ngeen ñu yónnee euh, ci euh, suñu compte yi nga xamante ni am nañu ko ci réseau sociaux yi allo. allo kookan la. man la Yacine. yow la. Yacine. Yacine na nga def. Yacine. ah là là téléphone bi wala téléphone yi dafay mel ni luy saturé léegi bu ngeen composé mu mel ni lu saturé da ngeen di raccroché soit ngeen composé waat même numéro wala ngeen composé beneen numéro alors je vous euh, je vous laisse le soin ngeen régler problème boobu yëpp. Eh, eh, gis ngeen QR code bi ngeen di gis ci suufu écran bi itam QR code bi eh, bu ngeen jëlee seen appareil photo bi ci seen téléphone portable ngeen mel ni lu koy photo daf leen di jox directement calpe orange money bi boo ko defee immédiatement di ngeen am possibilité télécharge ko ci seen téléphone portable ñu ngi ndokkeel bu baax Ajaalo borom agence de voyage bu mag bi bëgg lool suma rakk ji Amina Poté Ajaalo ñu ngi koy ziar bu baax nee na mu ngi ndokkeel notre animateur et notre oustaz préféré voilà allez ban téléspectateur la ñuy jëlaat léegi nii ci euh, numéro de téléphone yi alo alo allo alo voilà Ibrahima indil ma ko côté bi euh, très rapidement. allo ñu jël beneen téléspectateur allo Vieux Diouf voilà. allo la. allo allo. maa ngi lay dégg yow la kan maa ngi lay dégg de bu xënt bi metti na de ci appel yi. allo. <laughs> maa ngi lay dégg wallaay maa ngi lay dégg. allo maa ngi lay dégg de maa ngi lay dégg de. Ah. maa ngi lay dégg. waaw man tam maa ngi lay dégg. ah là là c'est dommage que dafa mel ni euh, luy saturé. maa ngi lay dégg kookan la. ah d'accord enfin enfin enfin dugg naa. yow la kan. waa Pape. waa man yow la kan. Pape man la Léna man la Léna Guèye. yow na Leena Gueye. Leena waaw maa ngi wootee Waalo. yaa ngi wootee Waalo Leena Gueye. papa dugg naa alhamdulilah. waa jeex na kon du la téye lu yàgg dama lay bàyyi nga tànn région bu la neex ci carte bi. léegi <laughs> jeex na tànnal naa la région de Thiès xam nga man moom damaa yomb damaa neex a nax man boo tuddee sëñ fàll wala sama yaay rek. nax na ma ah. man ku yomb la man damaa yomb tànnal naa la région de Thiès amul problème. waaw jël dañ la génneel région de Thiès ci carte bi très rapidement ayca région de Thiès nañu la génneel région de Thiès donc ci carte bi très rapidement. waaw donc région de Thiès dëkku Tata Adja Diallo yaayu Bijou Ndiaye ak Mama Kiné ak euh, Pa Amath ca Thiès. voilà donc lan moo tax enfin man maa la tànnal région de Thiès kon léegi ma décompteel la ma décompteel la région de Thiès. waaw waaw. ayca ñu décompté très rapidement nañu ko décompteel région de Thiès 5 4 3 bàyyi li yóbbu yi 2 1. waaw décompteel ma région de Thiès. 75000 moo nekkoon ci région de Thiès. Hmm. quinze 75000 moo nekkoon. moo nekkoon région de Thiès dañu la koy envoyé léegi li ci sa calpe Orange Money. non kontaan naa kontaan naa. waalo dafa neex damaa bëgg waalo waalo yi. <laughs> merci 75 000 yow yaa ko moom merci d'avoir appelé. waa mu noo yàgg ci ligne bi parce que am na ñu topp ci sa ginnaaw damaa bëgg a jël maximum de téléspectateurs allez passaat ma yeneen téléspectateur vieux euh, ku dugg rek nañu ko jël et ñu teg euh, benn question léegi nii ci écran bi pour Oustaz Modou Fall allez bu amaatee téléspectateur ñu jël ko euh, profito ci euh, poser benn question Oustaz Mout Fall euh, kii mu ngi laaj naan j'ai divorcé avec ma femme mais elle a commencé à fréquenter un autre homme avant la fin de notre idée est-ce normal mu ngi laaj naan dafa tàqalikoo ak soxnaam waaye soxnaam si am na beneen far wala beneen góor laata idée bi jeex loo ci xalaat jërëjëf alaaji Pape. lu ci diine wax baaloo ci xalaat. <laughs> jërëjëf alaaji Pape. Uh-huh. lislaam moom dafa am ay condition mm-hmm. buñ la xasee fase ngay jàpp sa idda te sa idda jeexagul. Mm-hmm. amagoo droit di ngoronte ak benn góor. parce que ñu bari dañu jàpp ni buñ la fasee rek sëy bi jeex na or que idda bi ci sëy bi la bokk. Mm-hmm. bàyyil xel ni idda bi. mooy temps bi nu may ku góor ki ni ko mm-hmm. ndax dangay ngay réfléchir jëliwaat sa soxna wala déet mm-hmm. temps bu temps bu ñu may góor nag pour mu xalaat jëliwaat wala bañ a jëli mm-hmm. jigéen waru caa ngoro idda bi ci sëy bi la bokk boo nekkee ci idda amoo droit bëggante amoo droit nobante amoo droit créer benn relation li fekk sa idda jeexul. amoo droit couplé. déedéet. léegi dinañ ci boole couplé ñoom. waaye sa idda jeexagul alaaji pap ngay ngoro. <coughs> l'islam sant ko kenn. ok am na ñoo xam ne nag dañuy bëgg faj mer. araam na ci faaxan. ci faaxan alaaji pap mm. jabaru faj mer ak jëkkëru faj mer baaxul. yàlla na ci yàlla musal dafay tax du yàgg. wala faru faj mer. wala faru faj mer. gelu faj mer. waaw yenn saa yi nga bëgg ki bàyyi yëg ni yaa ngi ci dara. Mm-hmm. tax nga di ko manifester. ba pare raconter sa vie wu jëkkër wala sa vie wu mais jaru ko alaaji pap jaru ko jaru ko jaru ko jaru ko alaaji pap waaw jaru ko àdduna day dox fi jamono toll daal bul wóolu sa ndeyjoor bay wóolu sa càmmoñ mhm. moom daal loo mën a ne mhm. na la concerné yow mi ci nekk mhm. jarul ma sàmba di xam jarul ma demba di xam parce que jamono yi weerante lañ nekk lépp loo séq ak nit ci bi ngeen di am jàmm bis bu ñagas-ñagas amee seen diggante mu génnee parce que léegi nit ñi dañuy ànd ak yow pour am arme arme de guerre. mais am lu nga xam di nekk ci jàmm ñun ñaare ngi ànd ni man toujours maa ngi xool lu ma lay dencal ci sa poche bi pour bu ëllëgee bu ñu ayoo ma waxal la ko. moo tax nag boo fi boo fi ñàkkee fit xëbal la day yomb. dëgg la am na ñoo xam ni boo ñàkkee fit doo jëflanteeg ñoom. Mm-hmm. pap accident bu mën a xew. Mm-hmm. accepté ko. Mm-hmm. luñ la ni yaa ko def boo ko defee bul weddi. après et alors. et eh, oh, eh, alors. yaa ko def maa ko def. et eh, alors <laughs> mu jeex. <laughs> et alors <laughs> de toute yàgg suñu borom la. waaw yàgg suñu borom la. mais am na ñoo xam ne tey dañ la naan borom tur nga dangaa am tur. mais alors borom nit la. waaw da am tur lii bu jëmee kaw du baax ci yow. di la ci chantage borom tur ak ñàkk tur a ci yam lu ñu la xoolal ñu la jàpp comme arme ne la lii. Mhm. danaa ko génnee nee ko na jib na mel ni saxaar na mel ni cuuraay na jolli. après fii réew mi la baab. dëgg de. fii réew mi la. Mhm. jub xocc ba mel ni yonent bi amu fi. yenn saa yi foog nga wàcc raay bi. Mhm. mais boo wàccee raay bi fexe cee teguwaat. Mhm. yàlla mooy bind bàkkaar yi moo koy effacé mais du nit. mais da ngaa am tur bu jëmee kaw. nangam nangam di la santaas ngay tàppataka ragal du yëfu góor. loo ne ba te dal la ci bu génnee neel maa ko def. après mu jeex. mais nit wër te ngoro. te sa idda jeexagul. nit wër te takk jabaru faj mer. naa takk jabar. pour xamal ko ni fase naa la takk naa keneen te noboo ko du dem mm-hmm. ku fi takk jabaru faj mer six mois un an lay diire parce que couple ba ca mbëggante amul du yàgg mm-hmm. kon nañu moytu yooyu yëpp mm-hmm. jigéen ñi nii takkit ngir faju mer nañ ko xam ki ñëw naan la dalaa bëgg mën ngaa fase sam samedi lundi nga takk jabar kañ nga fi ngoro bay bëgg bëggeel gu gaaw googu vraiment mënul ne <laughs> diggante bi idda bi jeex yow calculer nga fi idda ba am fi par mënul ne pap <laughs> kon plan woon nga ko ci mais dafa gaaw ak gaaw sax ak a gaaw wala pap ngay bëgganteeg nit yàlla boole leen ngeen di sëy lu ngeen mës a dund nettali nga ko ay xaritam li gën a bon alaaji pap nit ku toog ak yow te sa vie yëpp xam na ko te ki ko ko wax kat mooy sa jabar ji nga doon sëyal wala ki ko ko wax mooy sa jëkkër ji nga bàyyenteel am na koo xam ne day toog ak yow te tërgën bi nekk sa lupp bi sax xam na ko parce que sa jabar nee na ko am na benn tërgën ci tànk bi wala am na benn picc wala benn góom boo xam ne góomu ju duwaale la ay secret yoo xam ne nit kee ko war a xamal boppam muy ay vie personnelle am ah. léegi nit ñi dañuy ànd ak yow xam la wëlbatiku di la toogee Sénégal nag ku amul fit doo fi dund daa ñu la xëbal ah. daañu la napp ah. yor naa sa audio mm. yor naa sa son mm. faala de ku yor audio génneel te la jege rek la ku yor audio faala génneel faala ragalul loolu ku yor vidéo faala génneel. yow dinaa yónnee ay xale ñu fi. ku yor le motif faala génneel. naa yónnee ay xale. faala newul ci yooyu ragalul alaaji mu nga donc loolu mooy réponse bi ci première question bi euh, tout en continuant ak euh, seen ay woote dañ leen di jël euh, ci numéro de téléphone yi di affiché wu ci suuf écran bi donc 88 628 22 22 par exemple numéro bi numéro bu baax la gaaw leen balaa ñuy làlli man ak oustaz bay tàggatoo ak yéen ñu jël leen. ci euh, euh, téléphone yi ak fu ngeen mën ci nekk 88 628 22 22 am na ci région boo xamante ni am na 500000 est-ce que balaa may tëj euh, dina am téléspectateur bu ci dal I don't know comme ils disent les Américains l'essentiel mooy bu ci sa wërsëg nekkee mën nga koo am ci 88 628. 22 22 ma mayaat leen quelques secondes le temps ngeen woote bay dugg si. ñu ngi ndokkeel nag euh, waa Paris parce que ñoom nag ñu ngi préparé euh, grand balu 18 euh, bi le 18 samedi waaye veille bi di vendredi bi am na soirée retrouvaille boo xamante ni Saint-Denis la ñu koy amalee Mapenda Seck moo koy tëgg donc les femmes battantes de Paris ñoom ñoo ko organisé naa ko animé incha allah le 17. Euh, puisque Bercy le 18 la waaye le 17 euh, dinañu joxante rendez-vous fi nga xamante ni moo di Saint-Denis adresse beeg numéro de téléphone pour réservation yi mu ngi disponible ci sama ay compte personnel Pape Cheikh Diallo Univers TikTok YouTube euh, Facebook Instagram comme ça on va se retrouver à Paris le 17 juin vendredi à Saint-Denis pour une soirée retrouvailles échauffement avant grand bal voilà ñun nag dañuy wax ci diine mais en même temps euh, di euh, doxaale suñu doxinu jamono voilà beneen téléspectateur la bëggoon jël léegi nii euh, jox ko wàllam ci enveloppe yi le temps ñuy jël téléspectateur boobule El Hadj Vieux ñu joxa joxaat Oustaz Modou Fall beneen question voilà allez une autre question Oustaz j'ai répudié ma femme mais je me suis rendu compte que je ne l'ai pas fait sciemment xam naa ànduloon ak xelam bi muy fase jabaram <laughs> yooyu day dale bi yenn saa yi nga fase koo xam ne doyaloo ci moom looloo gën a metti te suuxa yàlla nañ ci àll musal da ngay mujjee manque sax toppaat ci ki nga fase dois-je la récupérer automatiquement ou je dois attendre la fin de notre idée xam naa da koo fase ba pare te doyalut mu rëccu ne bi ma koy fase àndul woon ak xelam ndax da ko war a jëlaat ci saasi bi xel mi dellusee wala dafa bëgg xaar idée bi jeex dafa war a xaar idée bi jeex mu dog koo jëlaat. jërëjëf alaaji Pape mu mel nii laaj na laaj bu am solo. Mhm. mooy ki nga xam ni dafa fase ba pare. Mhm. yëpp ni moom bi muy fase tayu ko. Mhm. danay am nag Pape. day am kay. Pape senegal am na xabtal yoo xam ne bu ñu la ko defee li fekk fase woo doo féex. am na bu tudd salfaañe boobu kay maa la ko mën a wax salfaañe ñetti téeméer la salfaañe gëmoo ma man ci réew mi laa dëkk <laughs> du ma judd jéeri du madanta fii laa dëkk. fii laa dëkk salfaañi paa bi 700 francs wala 1500 maximum nga koy fay mu salfaañi diggante nit ak nit. salfaañe bi nag moo xew fan dañuy jékki-jékki salfaañe ñaar ñu. ndeysaan mais Pape xam nga lu gën a metti ci àddina. ñaar ñu dund ngoro gu metti alaaji Pape. Mm-hmm. ku ne bëgg sa morom. Mm-hmm. ku ne di séentu alxayri jib sa diggante ki nga bëgg. Mm-hmm. Pape nga rayante ba sëy bi am. mbokki ku góor ki wala mbokki jigéen ki defi pexe ci doom ji mais Pape ñaari côté yëpp am na am na jigéen ñoo xam ni seen sëy tey li ko tas mm. xabta mm-hmm. ku góor ki day wàcc rek mel ni du moom salfaañe am na ñoo xam ni Pape bu <laughs> dañ lay salfaañe ba nga mel ni <laughs> doon kan mag am na ñoo xam ne buñ génnee kër gi tukki uh-huh. ñoo seen jabar duñ coupé ci ligne bi na ah. namm naa la ci loo nekk tiima manque gé xaw ma réew na mais gis nga buñ ñibbisee ah. dugg ci biir kër gi. Ah. day mel ni jàkkaarloo bi la rab bi di bañ. c'est vrai que bu ñu xoolee seen jabar yi duñ nekk à l'aise dañuy xuloo dañuy détaillé ah. dañuy werante da ngay jàkkaarloog sa jabar mel ni sa butit yi ngay gis. Ah. ay def-def la. réew mi dañ lay xabtal ba nga fase sa jabar. pap nga jékki-jékki toog ci sa conscience bopp mm-hmm. te boo bëggee fase li fekk fase woo doo féex mm-hmm. day mel ni ku woor te ndoguwul rek mm-hmm. li fekk gisoo café ak meew pour ndogu doo féex am na ñoo xam ne bu ñu leen xabtalee li fekk fase wun duñ am jàmm loolu nag dafa am ci réew mi bàyyi leen sëy jàmbur yi ngeen di tas. bàyyi leen nit takk jabaram ngeen ni bëggoo leen jabar ji seen yoon nekku ci. bàyyi leen nit am wujj ngeen di influencer aawo bi ku ñu takkal wujju ngeen influencer aawoom naan ko muñal ak lu metti yàggul ak dinañ bokk ak yow naqar li mel ni ku am dëj baleen loolu bàyyi leen sëyu jàmbur yi ngeen di tas yéen kooba yi ay kooba yi taxawaalu di wër di wër ci kër yi. <laughs> am na ci kooba joo xam ne nag ñoom seenu tas maanaam suñu maam yee ñu ko nettali woon. mais dëgg la. dañ ci ànd ak ay xale yu sëy waaye fexe nañu ba tas sëyu xale ñooñu. ànd ak ñooñoo. ay seytaane lañ ànd ak ñooñee. <laughs> pap xolal. ñi lay jay naan la tasal sa sëy bi sa jëkkër ji naa sa jëkkër ji lii góor ñi dañoo mën a wor kim la takkal du sa nawle fi nga jaar ak moom warulaa takkal wujj lebaloo ko lii lii xaaroo ko fi lan la gis ci kii ba koy takk ay seytaane lañ seytaane yooyu yëpp bu leen déglu ki lay tasloo sa sëy mi ngi ci sëyam tak toog mais Fall bul fàtte ni dañoo war a yendu ju kër su sare il faut ñu tàggoo ah tënkal réponse bi yaa ngi dégg Pape jéeg ngi ñuy xaar Pape damaa gis ci réew mi ñoo xam ni <laughs> damaa gis ci réew mi pap ñoo xam ne. Eh. ay seytaane tas seen sëy bi. mystique tasu ko dara tasu ko ay nit ñooy sol seeni dàll. di parang parangi ci kër gi di fen sa jëkkër ji nii sa jëkkër ji naa. Hmm. di fen di fen di fen ba ndaw si am ñàkk fay day tas sa yam hmm, man jigéen dana ma tasloo sama sëy jigéen dana ma wax ci sama jëkkër lu may déglu. Ah, ah. te ki la koy wax moom. Ah. lu ne mi ngi koy dund ci néegu sëyam fonde sax lay reeree. te teewul mi ko ni mukk di guux di naan ndox. di wax ba nga tas sa sëy bu ko nangu xamante ni par exemple xeet la ñuy nekk ñëw sëy ak ay waa Sénégal mais dañ leen di yàq. dafa métti alaaji Pape dafa métti sëyu Sénégal yi Pape war nañ cee wax lu mat weer. ndax problème yi dafa bari ci kër yi. am wujju mel ni àdduna bi dafay yem. assise assise warulaa takkal wujju pour lan ku sa am am mat danga takk ñaari jabar ba ñett ba ñeent. ñeent waaw góor dëgg quatre fem lay yor. góor day yor lii moo jaadu. way yem ci benn jabar rek ñu bëgg laa tontu waay yow. pour lan man moom baal leen boo gisee koo bëgg takkal jëlal. góor deux femme lay yor. man foo aye nga ni fii. man sama jaan wàcc na ci man baalal leen ma ko de. di sëy ngeen war a takk ñeent vraiment takk leen ay ñeent ay cinq bu yow yow it yow it nga jug ci sa bopp. wute soxna alaaji paa ñàkk soxna baaxul. baax naa nii dafay tax ngay bejjaaw te sa heure bejjaaw jotul. weex nga taal. <laughs> ñi la bëgg ci réew mi kenn xamul nu mu toll. bis bu nañu message ma Pape Cheikh Diallo laa bëgg. kañ la may takk. Pape nit bu la bëggee <laughs> Pape takkil jabar. alaaji Pape génnal ci célibataire gi nga ne. couper antenne bi. <laughs> man a taay Gabriel kan laa nopp bàyyi leen ma Gabriel rek comme man moom du génn ci tànk kuy dem maa ngi ci Gabriel kan rek Gabriel je t'embrasse très fort di ndokkeel inspecteur ndoy Bane monsieur le maire de Pire eh, di ziar waa Pire yëpp moom it euh, au-delà de maire bi mu doon ak collègue gi mu doon euh, sunu soppe la puisque bokk na ci inconditionnel yu midi plus euh, ci sama diggante ak Oustaz Modou Fall oustaz bi nga xamee ni moo lëmbee réew mi saf gaañ yi donc bu amaatee question très rapidement euh, El Hadj Diouf euh, ñu tegal ko ko 14h19 bu ko defee 30 pile euh, ñu tàggatoo oustaz à qui est-ce que l'islam impose la célébration de la tabaski waa c'est vrai que tabaski ñëw na daanaka de. Mhm. kan la kan moo war a tabaski. jërëjëf Alaaji Pape. Mhm. mu mel ni ñu ngi koy séentu. Mhm. yàlla nañ ci yàlla yóbbook ak jàmm. allahumma amin ki war a tabaski ci lislaam pap mhm. d'abord ki ci jiitu mooy ki ko man mhm. nga nekk jullit mhm. tënku ci lislaam tabaski nekk sunna du farata alaaji pap bu tabaski teewoon tey nga yor njëgu xar sa yaay ji la jur wala sa jabar ji nga takk am ordinance li la charia wax mooy nga jënd ordonnance bi bàyyi tabaski maanaam saa yu farata taxawee rek. Mm-hmm. sunna moom day xaar. te tabaski sunna la. Mm-hmm. kon boog ki ko man mm-hmm. mu leer ko ne lii muy tabaskee ñaqu boppam la lew na ko. lebu ko sàcc ko. dóorul mardu pour am ko. triandé ko kooku tabaski war na ko. muy góor. muy jigéen mais sunna la. ku ko sunna la waaw tabaski du farata. Ah te Pape yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci dundam dafa rey ñaari xar benn tabaski. waaw mais xar yi ñuy reyee suñu bopp nag ku ne bëgg di leb. ñii di jaru ko jaru ko yàlla tegul kenn lu mu mënul. boo ko mënul mën nga bañ a rey boo ko wàcc na la. Ah boo ko gisoo Pape ñu ne la tabaski ñetti fan la. Ah. premier jour bi amoo xaaral deuxième jour bi. deuxième jour bi amoo xaaral troisième jour bi. Hmm. amoo ko ci ñetti fan yëpp muñal ba déwén boo ko mënul daal bu ko def. yàlla teggil na la ko yonent bi ci dundam. dafa rey ñaari xar. ñu ne ko lu tax nga rey ñaari xar mu ne benn bi sama tabaski. bi ci des tabaski sama xeet. képp ku am yéene te mënoo ko tabaski waale naa la man Seydina Muhammad. ah kon kay yonent bi tabaskil na kon nag ku ko mënul. man de ren ma jënd ku ko baab jëndal nag. yaa yi ngay non mën nga ko ah, ku ko mënul. non non non mais feneen laa ko war dugal foo koy dugal. mën nga ko mën nga ko tabaskil tabaski bu mat sëkk waaw <laughs> boo yoree ñaari jabar <laughs> te mënoo jënd ñaari xar <laughs> jëndal benn xar yéene ci ñëpp waaye yenn saa yi nga gis ku yor ñaari soxna uh-huh. jënd benn xar uh-huh. ne xaru aaw ñaari xar xaru aaw bi xaru ñaareel bi yow an sa xar tabaski woo di dëgg yenn saa yi nga gis ku jëndal papaam xar bàyyi boppam or que tabaski sa papa la war. Ah. bu sa papa mënta tabaski wàcc na ko moom mais yow mi ko mën yow yaay tabaski. vieux yaa ngi dégg. yow gëj ngaa tabaski nit war a ah. bàyyi xel. vieux Diouf gëj man du ma jënd xam ne jëndal naa sam papa. déedéet Maodo Cissé gëj ngaa tabaski. waaw <laughs> Aziz Soumaré gëj nga tabaski. tabaski pap day loo xam ne sunna la waaye sunna bu am doole. voilà boo xam ne ku ne yaa koy defal sa bopp. est-ce qu'il y a une dernière question vieux est-ce qu'il y une autre question. Euh, je pense que question yi côté boobu euh, jeex na euh, kon mu Euh, bëggoon nañoo toogaat ba ci kanam mais faaw rek euh, ñu tàggatoo ak yéen mais balaa ñuy tàggatoo euh, mën nañ ci profité rek jëlaat ay téléspectateurs yoo xamante ni dañ leen di jox seen wàll ci enveloppe yi nga xamante ni ñoo ngi koy séddale ci Teranga Sénégal sinon vous donnez rendez-vous tey ci guddi je vous retrouve en deuxième partie de soirée pour àndandoo ak yéen célébrer euh, avant-première Bercy 2022 en attendant le 18 ñuy joxante rendez-vous Euh, accord hôtel Arena bu Paris euh, bu amaatee téléspectateur très rapidement ci tàggatoo bi rek ñu euh, jël ko bu ko defee ñu jox ko ci teranga yi maye bu mag bi nag dimanche laa koy amal. à partir de 17h mais Pape man dama am rendez-vous dama am rendez-vous Bordeaux. Bordeaux Paris. waaw lu xew Bordeaux. te comme yéen yéen a ngi dem Bercy. waaw yow ak ñoom Youssou Ndour ak <laughs> ñoom Bouba nduur ak. yéen ñëpp a ngi dem Bercy. mais yow mais du ngeen ma may billet man ma dem Bordeaux man dama am soxla bu may doxi Bordeaux. man maa dëkk ba ma jëm ak dëkk ba ngeen jëm bokkul. man maa la gën a ëpp soxla Bordeaux <laughs> man mii am na yu bari yoo xam ni war naa koo régler Bordeaux bu dee nag waa Bordeaux dañ la woo. <laughs> loo xam mu siiw yow. àdduna ndaw na àdduna tuuti na bu dee nag. da nga jot yóbbante bu jógee Bordeaux yow bu émission bi jeexee kër jee su sare laay lijjantee sans problème ak yow <laughs> bu ñu jógee kër jee asu sare euh, dañuy tourné tey Makou Sass Modou Fall ñu ngi jëm kër Viviane Chidid bu ñu jógee kër Viviane dañoo bëgg a ñëw Almadi ñaanal Youssou balaa muy dem Grand Théâtre parce que nag Oustaz wax dëgg yàlla Youssou il faut ñun njabootam ñu ñaanal ko xam nga boo njabootee ay xale yu am xam-xam baax na nga leen di déglu donc ngoon gi ay côté 19h daal laataa Youssou ji dem Grand Théâtre bëgg nañu dem ñaanali ko euh, bu ko defee bu mën a euh, tàmbali ci bismillah euh, jeexal ci alxamdulillah avant première bi en attendant le 18 grand bal bi donc pendant que ñuy tàggatoo bu amee téléspectateur ñu jël ko 14h24 mooy doog jot li des ci programme bi nag dañu leen koy bàyyeel lii ñëwee dàq puisque télévision Futurs Médias moo leen di wéttali c'est pas pour rien mu nekk première télé fii fii ci euh, Sénégal ndokkeel euh, Pape Samba Thiam ak soxnaam euh, Baye Yacine ñu ngi koy ziar bu baax oustaz ñu ngi lay gërëm di la sant dig daje bi incha allah en principe vendredi prochain Bercy bu soobee yàlla fa laa décidé man amalee midi plus. bu dee nag bàyyi nañoo borom kër geeg sagoom kenn jaarul ci suuf naan ko xam nga mooy mi yi muy diggante du seemee am naa ay chef yu am fit boobu waaye man prévoir naa <laughs> àjjuma di ñëw bu soobee yàlla ñu def euh, midi plus euh, fi nga xamee ni euh, mooy Bercy balaa ngay tàggatoo Oustaz ma ndokkeel suma benn jigéen mu ngi ci TikTok bi fan yii yëpp maa ngi koy ndokkeel di ko ziar yàlla na gudd fan. rafet jikko taalibe Cheikh. moom sama jigéen la sama rakk la sama xarit la nit ku baax euh, ñu ngi koy ziar bu baax et puis euh, am na sax ku doon laajte nii moom euh, ne ko takk nee na man takk naa benn maire takk suuf la ki yàkkatu der la <laughs> te ki ma koy yónnee kat maire la maire la boo xamante ni chaque jour moo may ne xam naa nekk gi may nekk ak moom daa foog ni dama koo takk takk suuf <laughs> da koo yëngu <laughs> parce que ñaari maire laay àndal te benn maire bi ma bind lii dafa am fit moom nga xam naa dafa foog ni à force d'être avec moi man takk naa ko takk suuf quoi <laughs> takkuma takkalew ma <laughs> doy na rek eh, <laughs> tàllal voilà yow saas yan kàddu eh, ngay tëjee eh, midi plus bi tey jërëjëf alaaji Pape hmm. ndokkeel la ñaanal la yàlla yàlla gën la defal jàmm yàlla gën laa defal wér foo jaar ci àddina bi ñu ngi bëgg ci sa liggéey di bëgg itam ci sa taxawaay kon nag ñaanal la yàlla gën la gën la roof kàttan mm-hmm. yàlla gën la may wér ci mm-hmm. daraja yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaye nag Pape di ndokkeel Serigne Moustapha bu Serigne Abdoul Aziz Al Amin ci gàmm gi nga xam ni moo nekkoon gàmmu Serigne kër si mm-hmm. ñu ko doon amalee ca Ndar muy gàmm goo xam ne keroog taalibe yépp bëgg ci taxawaayam waaye itam ci taxawaayu Serigne Cheikh Tidiane si bu Serigne Mansour borom daara ji ci taxawaayu Serigne Cheikh Tidiane si Al Amin waaye itam ci taxawaayu pap Cissé ak euh, soxna Maam Daba ak soxna asu ak mbooleem njabootu Seydil Hadji Malick gi fa teewoon yëpp ñu ndokkeel leen ci turu Serigne Moustapha Sy bu Serigne Abdoul Aziz Al Amin mm-hmm. sama Serigne boobu ñaanal ko yàlla yàlla may ko wér ak njabootu Seydil Hadji Malick di ci ndokkeel Abdoul Aziz Aale Ndiaye mi nu àndaloon ndar moom itam mu def fa taxawaay yu am solo di ko ñaanal di ñaanal soxnaam ajaratu Miss Ndiaye ak ay rakkam tabaarakallaahu di ñaanal Baye Ndiaye ak mbooleem soppee yëpp di ñaan réew mi yàlla na fi yàlla def jàmm alaaji Pape mm. di yégal nit ñi nag programme alxaaji mbay donde mhm. gàmmu mbay donde insha allahu rabbi le 18 juin lay doon ci taxawaayu xalifa mbay mhm. alxaaji dut kenn mbay mhm. Pape maalik mbay sama xarit Cheikh Tidiane mbay njabootu alxaaji mbay donde gépp ñoom Sofi Dem euh, ñoom euh, ñoom ñëpp alaaj alaaj Pape ñu ngi waaj gàmm gi ñoom Alima Ndiaye gàmmu alaaji mbay donde loolu nag ñu ngi ciy invité ñëpp alaaji Pape ñaanal ñëpp di ñaan yàlla réew mi yàlla fi yàlla def jàmm alaaji Pape di gërëm bu baax a baax a baax mboolem soppe boo xam ne yaa ngi doon bàyyi xel émission bi. di gërëm sama tailleur bi nga xam ne tey moo ma ñawal noir bu rafet bii. Mhm. muy Sam Couture. Mhm. numéro am nekk 77. cent 645 01 73 77 645 01 73 di ñaanal waa Lamiral yëpp ñoom Chérif ñoom Dia ñoom ñëpp ñaanal leen yal yàlla barkeel leen ñaanal réew mi yëpp alaaji Pape mhm. ñaan yàlla réew mi yàlla na fi yàlla def jàmm ci daraja Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba vendredi incha allah incha allah euh, bi ngay tàggoo maa ngi jot benn question mais question bi laa mënul liir euh, kii mu ngi naan dafa am benn couple heure bu ñuy nelaw rek gën dal lamb. lii loolu. laa liir ah. euh, comprendre ma question bi ci kilifa gu mag la jóge kilifa gu mag moo ko bind. mais comprendre ma est-ce waxul taal lamp kilifa bu mag moo ko bind kay waaw kilifa la de. <laughs> yow mënoo lii di nga ko tontu ah. <laughs> incha allah donc euh, euh, dernier cadeau bi laa bëggoon ñu joxe 14h29. koo koy jox man. Euh, bàyyi ma jox ko téléspectateur rek. mais doo ma loo raison jox ma ci xaalis bi comme maa ngi ko tiim. yaa ñu ëppale yow tam sa orange money bi ak tey li nga yàgg sëñ Moussa Fassi nga xam ni tab la. Serigne Moussa Fassi de Pape bis bu la recevoir xam nga man recevoir na ma. mais Serigne Moustapha si bu Serigne Cheikh Tidiane si al Maktoum. Eh. njiital daayiratul Moustarchidina wal Moustarchidaati eh. man recevoir na ma invité ma këram. Mhm. mais Pape bis bu la recevoir. Mm. da nga ñibbi ba sa kër jàpp ni daa jaawale. daa juum amiin Pape yàlla na la recevoir. ah taal lamp la wax. bu Pape kii enveloppe am yàlla bu mu la ump. mais kii taal làmp la wax. mu ne. taal lamp. yow question bi neex na la de. taal lamp taal lamp taal j'ai pas bi dafa important. bàyyil ba vendredi Pape. parce que kii kilifa la. te temps bi mu jël xam nga kilifa yi d'habitude kilifa gu bëgg tàllamp la xam naa ko toogal la naa leen kii mooy Pape Cheikh Diallo ñu naan la ah oui man nga nu ma seetaan télé Sénégal yi la kilifa yi rek mais ñoo dàq seetaan télé <laughs> bu la ci kenn nax mais am mais ah Pape je connais pas ñi la <laughs> ñi lay critiquer di la xas balaa ñoo tëdd nelaw seetaan midi plus du ñu nelaw te seetaanuñ ko da ngay gis kuy seetaan bay gëmm di mbëkk écran bi tàyyi mais kilifa gii nag te fu taxawee ne du ñu seetaan kilifa gii nag waxi taal lamp ak fay lamp da ko ki ma dajee loon mu naan ma mais c'est euh, oustaz euh, TFM la c'est comment ma ne ko Ablaye Diallo <laughs> wallaay allez merci à tous mooy doo ko jot bëggoon na maa jël euh, juste benn benn appel mais y a aussi programme bi <laughs> am na lu ci des euh, pour ñu euh, jàllale ko léegi nii en attendant ñuy dellu soit peut-être tout à l'heure on fait quoi dites-moi on prend un téléspectateur très rapidement. sachant sama benn sëriñ nag mi ngi yóbbante nuyoo ci yow. kan la ñu di ko wax Fallou Star. Fallou Star Serigne fàllu Mbacké. Serigne fàllu Mbacké. waaye dafa baax yiw. macha allah mën a sañ se lool. macha allah dàkkantalee Fallou Star. ñu ngi nuyoo ñu ngi koy ziar bu baax. Euh, Fallou ñu ngi koy nuyu et puis tuddee Fallou Star sama xel day dem ci Fallou Mbacké transitaire. ku baax Serigne Fallou Mbacké transitaire. nit ku baax El Hadj Pape Kor Henriette madame Mbacké. Henriette la ci Marie. ku baax Fallou Mbacké transitaire. ñu ngi koy ndokkeel bu baax sëñ Fallou Mbacké transitaire. di bu baax dimanche ba la weesu ñoo ndekkeendoo maag moom fii ci Kaiser. mënoon nga maa woo xam nga Pape man par dimanche Kaiser laay ndekkee. Kaiser dafa nag. fa laay dem ndekkee. baa xam nga dafa la kooba ji daje <laughs> kon yow maa ngi doog a komp lu tax nga miin kooba ji kooba ji la ñuy teel a dem ñoom toog <laughs> ñu wër leen. li ma xam daal mooy seen ndékki neex na te laay dem. Ah, ndékki ayoo tam looloo ma fa yóbbu. heure ndékki bi lañuy ñuy traité kaay <laughs> li ma xam dafa bëri. <laughs> man benn dunq moo ma teree naaw. kon naa changé lii léegi di dem di ndekkee see kaca ay doore sax wala see kaca see kaca sax moo tane. waaw ah, naay léegi naa kaca ñoo ko moom nag. suñu moom kaca moom suñu yëf la kaca suñu yëf la ah, ku ci bëggati ndekki na nga dem see kaca ku ci bëggati añ na nga dem see kaca voilà see kaca moo fi ne et puis patrimoine yëfi Sénégal la <laughs> voilà très rapidement benn téléspectateur kon ñu jël ko allez 88 628 22 22. Euh, programme bi li ci des bu leen ko fàtte aussi <laughs> y a euh, d'autres émissions qui arrivent euh, gërëm bu baax Sonatel Orange Wido Megawin gërëm tamit Nescafé Orange Money Boisson King Euh, et puis Orange Sonatel euh, Villa Teranga Sénégal bi ak 40 millions la valeur baa ngi toll ci 40 millions wan xbet itam ñu ngi leen di gërëm bu baax Ombelico meuble merci euh, gërëm luxury bijouterie bay Khadim Nia parure bi foofu la ñu ko jëlee di gërëm tamit bu baax équipe yu CSB showroom yi nekk un peu partout à travers Dakar ak président directeur général bi di Djili ñu koy woowee Djili CSB allo. allo la. man Faty Samba Diallo. yow la Fatou. Faty Samba Diallo. Faty Samba Diallo. waaw. fooy wootee. maa ngi wootee Matam. naka waa Matam. ça va ñëpp ci jàmm. nu ngeen def ak tàngoor bi. ah fii de daa tàng ay ca wax ma ban région ngay tànn. man maa ngi tànn région de Matam. région de Matam très bien parce que maatam nga dëkk. <laughs> waaw jeex na nañ la génneel très rapidement région de maatam ci quartier bi fan nga dëkk ci maatam Fatou Fatou xaw ma Fatou Mata. maa ngi dëkk Ngijulon Ngijulon. d'accord foofu neex na. ca Fouta neex na kay. yaa ngi liggéey walla lan ngay def. waaw maa ngi liggéey. yaa ngi liggéey macha allah. waaw. voilà léegi ma décompté la région de Matam. waaw nga calpe Orange Money. waaw très bien ça c'est vrai que Calpe Orange Money nag moo national nag alo ay ca ñu décompteel la région de Matam loo fa fekk rek dama la koy yónnee léegi ci tàng tàng bi ci sa Calpe Orange Money. waay. voilà après boo amee question boo posé Oustaz Modou Fall ma bàyyi la nga posé ko très rapidement allo. incha allah. ñu décompté c'est parti. nañu ko décompteel région de Matam cinq 4 3 2 1. alors Fatoumata 75 000 moo nekkoon ci région de Matam félicitations. ñaata nga yeewoo tey. ah zéro franc laa yeewoo tey. zéro franc nga woote ci télé bi am 75 000 francs. waaw. mais bravo yow yaa ko moom. damaa yàgg woote damaa yàgg woote Pape Cheikh. bravo. d'accord yaa ko moom yaa ko moom yónnee naa la ko léegi nii ci sa kalpe orange money mbaa jot na ko. ñëw voilà nuyul ma waa Matam yëpp. waaw dinañ ko merci beaucoup merci ñu ngi lay gërëm bu baax euh, téema jëlaat beneen téléspectateur. <laughs> mënul ñàkk de xaalis bi yëpp laa bëgg a joxe tey bëgg fi bàyyi benn enveloppe. Euh, Rama Fall Ramani euh, euh, mieux vaut tard que su ma jigéen boobu démb la woon anniversaire am donc Ramani on te souhaite beaucoup de bonheur ñu ngi lay ñaanal gudd fan ak wér gu yaram Khoudia Mbaye borom Rouge Collection. Euh, rouge itam euh, tey la anniversaire am et pourtant Rama euh, xaritam la comme un hasard démb anniversaire Rama tey anniversaire Khoudia alors Rouge ñu ngi lay ñaanal gudd fan ak wér gu yaram joyeux anniversaire à toi de ma part de la part de Nafi Diagne madame Silla depuis Paris de la part de ajot Ami Galaslo sama yaay de la part de Hamama de la part de Rose ah de la part de famille bi yëpp ñun ñëpp ñu ngi lay ñaanal gudd fan. ak euh, wér yaram xuuge loo dund euh, doyul on se retrouve à Paris euh, ci expo vente bi nga fa nar a amal très prochainement kon mbokk yi mu ngoog gërëm El Hadj Vieux Diouf Euh, madame Guissé toog mu Serigne fàllu euh, gërëm Corombaar Ndiaye mi nga xamante ni moom lay àndal ci Midi Plus bi mooy rédactrice bi tout la semaine mu ngi ci ginnaaw Pape Samba Thiam itam euh, ñu ngi koy gërëm bu baax ak euh, maquilleuse yi bokk na ci euh, mami kooku sama doom la ak ñoom Khadija ñu ngi leen di gërëm dinaa dellu si vendredi prochain man ak Oustaz Modou Fall Euh, sinon tey ci guddi maa ngi leen di jox rendez-vous euh, ci avant première bi Youssou Ndour ak Super Étoile sinon dimanche euh, je vous retrouve waaye xam naa dimanche comme dafa am làmb damay teel a ñëw boori 3 heures bu ko defee ñu amal maye bu mag bi parure or kër gi chambre à coucher bi salon bi wala téléphone portable yi lépp rek ci Teranga Sénégal merci bon appétit et bon week-end cultivez la joie.